tur yoo xamante ni ñu ngi leen di cité par rapport ay hectares yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy am mais ce qui pose problème mooy anam bi nga xam ne moom lañ koy amee au fait. absolument mhm. euh, di nga ma tuuti. ci mhm. wàllu campagne agricole bi parce que vu que je représente l'État ici en tant que un membre de de PASTEF euh, le 3 mais bi ñu génn dañoo def benn conseil interministériel. au niveau de, du CICAT, euh, présidé par le Premier ministre, euh, le président Ousmane Sonko. Euh, utilité boobu ak li tax ñu def conseil interministériel bi mooy d'abord ñu xoolaat ban trajectoire la ñuy jox suñu campagne agricole 2024 ci loolu je à rappeler une expression boo xam ne nañ ko téye parce que fi ma jëm moo tax ci suñu programme dafa am une expression bu ñu utiliser ne le projet est là pour raccorder et soigner les fractures sociales fracture sociale mooy injustice bi ngay wax mooy ku ma am ndey ku ma amul ndey mooy nii laa toll maa ànd ak diw maay am ànd ak diw doo am. góor a di euh, dundee ñaqu baadoo la di ah. siim ci roy buur loolu mooy fracture sociale ah. su le plan agricole bi ñu demee ñu def ay constat constat bi li ñuy gën njëkk a seetlu mooy nekk jiwu yi ca ña ma waroon dem dëgg demu fa loolu la président premier ministre njëkk a seetlu loolu la le ministre Mabouba Diagne njëkk a def sur ces états des lieux bi loolu amee ñu amal conseil interministériel bi ba pare jël ci vingt trois mesures maanaam ñaar fukki mesures ak ñett duma ko ne waaye dama ciy jël yi ci nga xam ne ñoo ci ëpp solo bi ci njëkk mooy état bi génn sur le plan du financement dafa jagleloon wàllu mbay mi lu toll ci cent milliards ñun ñu ne dañuy yokkal. ñi nga xam ne ñooy baykat yi teg ci 20 milliards muy 120 milliards. deuxième point bi nga xam ne aussi mesure bu am solo te ñu jël ko mooy ñu def li nga xam ne moom la ñu tuddee ci wàllu jiw yi ndax dañoo constaté jiw yi nga xam ne moo doon ñëw di engrais yi. doonul woon xaaj bi du ay engrais certifié engrais certifié moo mën a tax nga am rentabilité sur la récolte premier ministre. joxe ordre ne nañu jël li nga xam ne mooy engrais bi mu doon engrais certifié boo xam ne bu ko état dugalee dina mën a am li nga xam ne mooy résultat escompté beneen bi mooy mu joxe injonction joxe aussi ndigal ci ki nga xam ne mooy le ministère le ministre euh, comment dirais-je des ne ko dama bëgg nga doxal ma. ci zone e mois bi lu ci mel ni BCEAO ñu xool baykat yi naka la ñuy alléger li nga xam ni moom mooy seen abbin ak bu ñuy delloo taux yi nga xam ne moom la ñuy def beneen ndigal recommandation bi nga xam ne aussi joxe na ko mooy mu wax ne désormais jiw yi nga xam dañ ko doon séddale jiw yooyu yëpp ministre de l' agriculture jox nañ ko ndigal mu ànd ak ministre bi nga xam ne moo nekk au niveau des forces armées ñu lëkkaloo. ak ministère de l'intérieur ñu lëkkaloo ngir def li nga xam ne moom mooy séddale bi lu tax mooy nee na ñu xool kan moo war a am ak la muy am lan la ak ndax buñ ko ko joxee dinañu indil li ñu bëgg en terme de récolte beneen mesure bi nga xam ne si jël na ko te muy mesure bu bu ama am solo mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu digitalisation de l' agriculture mu ne jox na digal ministère bi nga xam ne mooy économie numérique ministère yi nga xam ne nekk ci wàllu technologie ñu xool même mbay mi naka lañ koy digitaliser est ce que xam nga ne am na ci réew yoo xam ne da tëdd sa nekk tëdd sa kër yor sa commande di gérer say drone mu lay arrosel say jiw ay machine a koy def ñu jéem a tendre vers la digitalisation non seulement ci séddale bi mais aussi à long terme sur le plan structurel ñu xool naka lañ koy digitaliser beneen mesure bi nga xam ne aussi jël na ko te muy mesure bu ama ama am solo mooy lan mooy ñu yombal accès au foncier maanaam assiette foncière bi nga xam ne moom lañ li nga xam ne mooy agriculture baykat yi nga xam ne ñoo ko war a am ñu am ko ngir lan premier ministre Ousmane Sonko ngir bu ñu amee suuf si ñoom dinañu mën a dem. fi nga xam ne moom mooy ci banque yi ngir mën ko faa teg comme gage ngir ñu mën leen a jox loo xam ne dinañ ko mën a doxalee seen mbay waaye dernière recommandation bi mooy lan yéen ministres yi lépp loo xam ne recommandation ñu jox leen ko fexe leen ba na ngeen ko def waaye leneen li nga xam ne moom la état gouvernement actuel bi def te muy loo xam ne lu lu mat a saluer la ndax baykat yi ak acteurs yi ak coopérative yi nga xam ne ñoo ci nekkoon état daf leen ameloon ay bor. fay mu ne nañ leen fay seen bor balaa la diime nañ leen ko fay waaye bor yi nag ñaari pàcc la benn bor bi mooy bor yi nga xam ne dafa jëm de deux mille vingt et un vingt deux mille ba ba vingt trois nañ ko fay boobu mi ngi toll ci lu ëpp ci ñaar fukki milliards. mu ne beneen bor bi nga xam ne foofu noonu gis nañ ne am nañ ay soupçon ne am na téex téex mooy ci olof maanaam. xaw naa maanaam. Mm-hmm. jaarul fa mu war a jaar. maanaam mat naa saytu mu toll ci quarante et quelques milliards. Mm-hmm. le premier ministre Ousmane Sonko ci ndigalu président de la république Diomaye Faye nee na nañu saytu bor boobu. bor boobu li nga xam ne nag jaar na ci yoon. nañ ko fay. donc loolu ce sont des mesures importantes yoo xam ne jël nañ ko. démb le premier ministre dalal na ki nga xam ne mooy le ministre de l' environnement de l'eau et de l' agriculture des émirats arabes de l' arabie mi ngi ko dalal. moo kan moo ak le ministre de l' agriculture Mabouba Diagne xam nga la moo nekkoon objectif wax bi daje bi audience bi mooy ñu dox ci créer ce ko appelle l'autoroute de l'eau mooy lan mooy ndox yomb mën a yegg fa mu war a yegg moo xam ci tool moo xam bu ñuy naan moo xam leneen ak leneen beneen bi lan moo tax mënuñoo yegg ci am autosuffisance wala souveraineté alimentaire Et pourtant, Birahim, on a de Bakel à Saint-Louis lu toll ci deux cent quarante mille hectares cultivables nooy nepp bu loo ci ji mu delloo la ko mais exploité wuñ ko souvent problème de mbay mi nit ñi dañuy wax ne Sénégal li muy bay c'est juste trois mois nawet lay bay ñun ñu ne dootuñu bay nawet dañuy bay nawet di bay noor comment mooy dañuy utiliser ndox mi nga xam ne. lu toll ci vingt milliards de mètres cubes boo xam ne eau douce la te suñu digganteeg Mauritanie ñàkk koo mën a utiliser tax muy déverser wu directement dans l'océan Atlantique dañ koy utiliser à travers les vallées fossiles les vallées fossiles le canal de Kayor canal de Bawol Dandamayo et le Gandiol nga xam ne irrigation bi day dem ba dugg fi nga xam ne sax tey jii dina mën a permettre baykat yi mën a am ndox donc deuxième point bi nga laaj mooy lu jëm ci wàllu suuf si ba tey li tax ma ne leen téye leen expression soigner les fractures sociales mooy le président de la république Bassirou Diomaye fay chance bi Sénégal am mooy dafa am fu mu juddoo am fu mu bawoo bi mu bawoo ba jàng foofu dafa dem jàngi impôt et domaine li tax loolu mooy c'est juste dans le but bu ñëwee mu indi des solutions par rapport ak loolu gis nañ ni affaire de Ndingler ni mu ko yenoo woon boobu doonul président gis nañ ne su à travers les explications du maire euh, Babacar Diop c'est lui-même à partir de la prison de sa cellule moom moo woo téléphone Babacar ngir solliciter ko ci jàppale ko ci ci problème bi nga xam ne moo am mbuurkat maintenant problème de suuf la ku ne xam ne ni le président Macky Sall waxoon na ne doléance dossier yi may jotee quatre-vingt-dix pour cent ci plainte yi suuf la.